Euh, mu doon benn benn ful bi na xam ni itam génn nañu daal di yuuxu li na xam ne que mu di Ousmane Sonko namm nañu la. mais tamati tam amad benn bor bi nga xamni ni tam euh, neen ki nga xamne que moo di président ak ay euh, couleur rouge n'a nga que euh, drapeau bu Sénégal di nga que moo version rouge manikon lol mi ngi nak na mu nek forme de lutte bi nga xamni tam, ndaw ñu soobu neen si di wala mëna synchroniser li que justement les grandes surfaces ginaaw li nga xamne que moo di alors fa lay daal di njëkkee manikon ni aussi tafaaw si élément bi su paree dem seetaan petite si benn euh, yëf dal di yem exactement alors euh, gis nako exactement euh, chanta papa ak ndaw yi nga xamni ni itam ñi ngi nek un peu part daal di ki nga xam ne que Ousmane Sonko comment est-ce que nga dal di li nga xam ne que moo comprendre nu nu mel est-ce que forme lutte bi nga xam ni itam jeunes ñu koy aborder à dans ce sens parce que aussi ñom nenen ça suñu bëgge manifester daal ñu koy gank lu bëgge yëngu a yëngu daal leen koy li nga xam que difficile est-ce que japp na ni lu nu mel itam yenn alternative xam dans allant dans sens. Sénégal nous avons a bëgg hmm. ndax gën hmm. je dirais ça sera même une réconciliation entre le peuple et son gouvernement. ndax à un moment donné da ngay yakar, ni ñu nekk benn boor ak son ndax sénégalais dafa le fait populisme. Hmm. a donc il koy un phénomène la phénomène fenn foo xam ne kenn mënu koo téye je pense loolu day wane rek ñuy toog naan Sénégal amul démocratie démocratie la ndax lu gën a neex ngeen toog instant ñëpp gis amul boor bi amul boor bee benn wooy jóg ñëpp wooyandoo ko si jàmm ak salaam ndax lu ma ko moo fa nekk nga ne benn forme de lutte la. tey Sénégal dañoo tollu fenn foo xam ne jàmm bëgg kon même bu dee forme de lutte la mais dañoo gis ni c'est pas encore violent donc dañuy dadi leen loo xam ne dañ koy sakku jàmm rek lañuy ñuy yoole la ñuy Sénégal ndax ñun mënuñu amuñu leneen lu dul Sénégal hmm. kon dimb sa lu am États-Unis encore dañ koy jàppee carrément démocratie la ñu nekk boor bee ñu nekk boor bale ñuy waan ñuy wax ndax tey politique surtout ñun ndaw ñi war ñu jàppee politique cimetière d'amitié et de fraternité déedéet ku nekk mun nga far fi nga far. Hmm. te bis bis vote si jotee yaa xam ki ngay voteel donc dañ koy def si njëkk dañ koy def mu rafet. ndax ci benn kër da ngay gis kii farfee kii farfele waaye loolu warul doon animosité suñu biir te ñun Sénégal tolloo nañ fenn foo xam ne ñëpp jaaxle ñëpp ñëpp tiit ndax doo xam sa noon doo xam lii politique bi yóbbu nañ bu ñu noonu suñu biir donc réconciliation bi da dari leen loo xam ne dafa rafet. kon ñun ñu bañ a dugg donc jàpp nañu sonkorisation bi réconcilier li nga xam que Modi justement euh, entre les sénégalais parce que dañoo da di euh, bàyyi walu ko violence bi opté ben forme lu jëm ci euh, li nga xam que Modi manifeste ko que autrement c'est nakar li nga xamni tam peut-être métti na leen selon ñoom si nguuru nguuru président Macky Sall bi. non comme luma ko waxee sanki man forme de réconciliation la ko jappé ndax tay hmm. so duggé stade yo nga jënd ticket pour dem sétane ben match ñu woy ben woy nga jóg woy ci amana sax. loo koy defloo ak ki nga xam ne mu ngi koy def bokkut mais leneen la rek benn woy boo xam ne ñëpp ñëpp ci yooyu doo gis lii doo gis le mu doon ñaari supporter yoo loolu rek réconciliation la moo gën ndax tey wax nañ ko romb nañ fi ay événement yoo xam ne kenn ñaanatu ko yàlla ñun ñu fekkee waat ko mm. dundaat ko kenn ñaanu ko yàlla muy événement juin événement juillet événement mars 2021 kon Sénégal dafa war a avancer donc tey nit ki ak loo mënta am lu la nakaar am na noo koy wonee comme nu ma ko waxee encore su amee mbégte am na noo koy wonee ndax tey ñooy nekk si estaat yi ñooy ànd tey ñooy ñooy ñibbi si kër yi ñooy toog jotaay ñooy ànd dem liggéey donc réconciliation dafa war a am animosité war a jeex biir Sénégal Hmm. alors mi ngi noonu euh, noonu ko daal di jàppee par rapport ak li nga xamné comme que réconciliation bi ma kon les jeunes euh, ñi ngi essayer pour daal di réconcilier seenu ko biir ak euh, nouvelle forme bi nga xam ne itam obtenir ko ci allant li nga xamné que dans ce sens alors tianta vous l'avez précisé tout à l'heure par rapport ak aujourd'hui lu jëm li nga xamné que moo di bi nga xam tam ñu koy daal di gis aussi li xewoon stade sànq wax na que ni dafa nek ben façon bo xam ne itam peut-être di jubóole li nga xamné comme que moo ndaw ni ak suñu ay nit parce que da nga

animosité bu am suñu biir loolu bépp sénégalais da ko war a xeex tey suñu ñëwee par rapport au sénégalais de la diaspora ñu xool tey esprit bu ñu fay dundee ndax tey lépp lu metti metti ku nekk boor bi ku nekk boor bale sénégalais nga tey li mm. ngay ñaan yàlla mooy da ngaa dem ut à 90 pour cent say yéen mooy lan nga am dellu Sénégal investi Sénégal moo la tax a jóg donc dañoo war a def benn bloc ku nekk mun nga far fenn kon nu ma ko waxee fenn rek laay ñaawlu mooy lu metti metti nañu warmal ak ku mu mënta doon. Hmm. mooy ñu warmal suñuy leader politique. donc warul woon saaga pour yow. ñu warmal suñuy leader politique muy ñu nekk opposition que ñu nekk pouvoir. ñu warmal leen jaruñu saaga mais mun nga wone sa mbégte kon ni ma ko waxee nga wone sa mbégte ci rafet te doo saaga kenn. nga hmm. wone sa nakar encore si nga wone sa nakar ci njëkk te doo saaga kenn man de loolu laa ko jàppee. Hmm. alors donc mi ngi donc euh ban roo synchronisation mais saga yi nga xamni tam itam gis nañ ko si allant dans ce sens alors euh fan la war a yobbu le président Mistral Trump sur le plan international exactement parce que aussi euh, yef yi nak euh, peut-être euh, wa Benno ñu koy minimiser mais dina am impact justement sur le plan international par rapport à la personne de Macky Sall. wa comme ni ma ko xam nga dafa am len lo xamné c'est-à-dire ku nekk dafa japp ni ñom ñu nekk fee ñu nekk. États-Unis te far benn boor dañoo jàpp ni carrément am na benn message bu ñu war a lancer pour gars yi xam je pense que dañoo nekk ci benn planétaire loo xam ne lu xew Sénégal ñëpp a koy yëg. Hmm. manifestation bu fi am liggéey bu mu mufta am ñëpp a koy yëg. Hmm. kon te lu métti métti kon ma koy waxee le président de la république c' est le président de tous les sénégalais hmm. nga farak moom nga bañ a farak moom su demee c' est le drapeau sénégalais bu muy wane kon nu ma ko doon waxee sànq mooy man ak lu mun tamit dañ koy wormal dañ koy protéger parce que il porte fi ba deux mille le drapeau du Sénégal. donc euh, tay ak fu mu yobo ko munte yóbbu ndax am na yo yoo lu lu bon. évident activistes ya fa nekk ñoom Ousmane et tant d'autres euh, c'était évident que accueillir que de façon euh, très très très très justement sonkorisée. je ne vais pas personnaliser le débat pour pour attaquer quelqu'un mais dama japonais ku nekk ak ni ngay doxee ak idéologie bi ngay doxee. te lu metti métti tey soo nee Sénégal moo lay moo la tax a jóg Sénégal ngay ngay xeexal am na am na limite fi ngay yem. Hmm. waaye ñëw ba di saaga ma dam dem ci d'accord ak boor bu mu mënta jógee. Hmm. teg ci ñaar. tey sooy sooy lancé message message bi am na noo noo koy lancé mu rafet ñëpp ko dégg ñëpp ko gis. mais Sonko nam nañ la bi boobu euh, bañu ko. no comme ni ma ko waxee sànq mooy tey Sonko namm naa la jërëjëf. le président Macky Sall sa liggéey rafet na man dama jàpp ni ku nekk dafa am fi nga xam ne foofu nga far ku nekk dafa message bi ngay wone hmm. ma yaakaar ni c'est ça la nga defee ko nu mu gën a rafetee te doo saaga te suba du ñu génnee sa vidéo te fu ñu ko génnee rek waaw ah, nga war segg hmm. alors nous avons donc chers par rapport à la synchronisation euh, fa New York alors peut-être pour nous euh, évoquer de page vous li après euh, peut-être dans manifestants et tant d'autres les dégâts collatéraux se poursuivent exactement est-ce que li ne que modèle Sénégal ne doit pas s'inspirer du modèle justement des États-Unis peut-être pour la démocratie daal fi waaw cest à foofu laa doon waxee sànq bu may tàmbali mu ne carrément toll nañ fenn foo xam ne dañoo war a defaraat Sénégal. Hmm. defaraat Sénégal waxuma la si ay infrastructures defaraat xoli hmm. mooy politique da di leen loo xam ne lu noble la. parce que c'est l'art de gérer les affaires de la cité donc politique soo koy defee danga koy def ak xel xel bi mooy lan tey bul nangu politique mu doon leen loo xam ne day doon si cimetière entre.

alors mi non donc chers téléspectateurs ma ni kon démb président Macky Sall mi ngi mi ngi fa nga xamni ni itam mooy zone rurale ko donc non la ko daal di gëtanoowee euh, donte sax am ci ben parti bo xamni ne itam gëtanu nañ avec des drapeaux euh itam am na benn parti bo xamni ne itam gëtanu nañ avec ben synchronisation bu xawa li nga xamné ne que moo am tolé alors euh, dañuy daldi wëyel wax aussi ci euh, kenen bokku na ci ki nga xam ne que moo di Juan Branco mu daal nek le porte-avocat Ousmane Sonko jappé ni itam ñom itam mu jëne daldi saisir li nga xamné ne que moo di la à la dernière minute ma kon ki nga xam ne moo di euh, Juan et compagnie la ñuy daal di